asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhum mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan wu gàtt rek jëm ci réew mi ñu bokk ak uh, diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk ñu bëggoon dikk ci tomb bi nga xam ni junjoon nañ leen ko keroog muy soxna sa njiitu réew mi nga xam ni déggoon ngeen li ci mujj mooy waaye dem na ci moom di ko ñaan ndimbal ngir ñu yóbbu imaam Alioune Badara Ndao rahmatullah alayhi mu faju ji loola mooy li mujj dégg naa fi ay plateau télévision yoo xam ni yi suma juumul benn animateur boo xam ni bii ci diine lay waxtaan moo ko doon def di ci ñaan ndimbal ci ay nit ñoo xam ne ñii mbir da leen di gàllankoor ci wàllu wér-gu-yaram walla lu ni mel mu ca daan woote walla ay nitam di ca woote di ca feeñal seen ay jëf njiitu réew mi di def lu ni mel waaye su fekkee ne soxnaam a ngi koy def waxaalew ñu ko moom muy ay jëf yu jaadoo di ay jëf yu ñàkk a tegu ci yoon ay jëf yu dëng ci réew mu normal ndokk nak ba ñu nekkee ci Sénégal ni kon laaj nañ leen ay compte bu yàgg ci jëf ñuy jëf bokk yi ñoom am nañu ay salaire mom ndaw moom ndaw si waxuma ko boroom réew mi laay wax waaye lan la salaire am mën bu ñu ko joxee tamit caisse noire lan la caisse noire ba war dox lan la war a dox Tak dafa war a nekk privilégié mooy ñoo xam ne ñi daal ca kaw la ñuy nekk di ko noose déedéet ma man kon kay mom te kon bu nga xamee at mi daanu na ñu jël xaalis bi nga xam ne bii moo ci Sénégal ñu ne nangami junni milliard ñu teg ko ci loxoy Macky Sall benn yoon mu bañ jaar ca banque jaar poste jaar trésor mu xool lu mu ciy def ak nu mu ko neexee loolu kañ moo gënoon wax ji jeex waaye loo xam ne lii ci ay junni milliard lañ ko jàpp lu mu gàtt-gàtt ay téeméeri téeméeri milliard mu yor ko di ci def num ko jabaram di ci def num ko dikidef ay jegeñaaleem di ci def nuñ leen loolu réew mi ay citoyen di nelaw a fa nekk ay citoyen yu jàngul xamuñu seen xàq xamuñu seen xàq moo tax ñu leen di dimbalee seen alal ci façon bii wax naa leen ko ñii ñuy évacuer di yóbbu France néew na loo ci déggu baadoolo ñaata yoon ngeen di dégg fii ñuy ñaanal nit ñetti million rekk ñetti million émission boobu ma leen di wax mu tuddoon grand cœur defe naa loolu la tuddoon dañ fa daan toog di yelwaanal nit ñetti million mu tëë sotti ñi ñu fay yóbbu ay kilifay nguur lañuy doon ay politiciens wala ay sëriñ dañoo gën dañ ñoo gën a yey ci réew mi dañ ñoo gën a wopp dañ ñoo gën a am njàqare ba tax ñu leen di seppi di leen yobbu ci réew momé di leen faji fu mu teggu alal joo xamni ñun ñepp ñoko bok ki nga xamni ki da fay fay impo ay millions yi millions mo ki fay impo juromi témèr ñoo yem ci réew mi ño fi yam ak kep nak amul wuté kan moo ëpp sañ-sañ sa morom ci lolu image boobu dafa war a jeex ci réew mi te jot na sëkk nag jot na sëkk dañ ko ko waroon a jox xaalis bi kuy ngénte woo ko mu ngénteel la mag yi damay ngénte mareem damay ngénte kuy dëj woo ko kuy takk jabar woo ko noonu nga xamee ne nag <laughs> noonu la koy defalee kuy gàmm woo ko kuy màggal woo ko kuy cant woo ko loolu la ñu waroon a def budget bi dañ ko ko waroon a jox rek mu jal ko def koy kees ak i enveloppe ak i saaku toog di xaar ku onk mu fajal loolu lañu waroon a def budget bi loolu lañ ko waroon def su boobaa sax ñu mën ni ah ku ne jot nga sa àq wala ku ne jot nga saw nar ci nag wi su boobaa ñu wax loolu biye oh, oh, oh, aji ngay deg aji makka deg nga it ay biye yu yobu nit rom kon lepp <laughs> lay tuddu man soins médicaux bo beugé faju ñu yóbbu la ku ne mbilim lacc ñu yónnee la xaliss jox la délégation nga dem tok fa préfet ñew wala ministre wala gouverneur ñu ñew fa di gërëmante ka santante ci alalu réew mi waye li na jeex am naa yaakaar ni ñiy jëf-jëf jii dégguñu moos leetar ba Haarun Rachid bindoon Sufyaan as-Sawri rahmatullah alayhi leetar boobu ku ko bëgg mook mbokk yi day xat fii ci ma leen koy waxee ñi dégg tubaab nañu bind leetar Sufyaan et Rachid wala boog lettre de Rachid à Soufiane bind ko ci internet ndaw lettre bu yéeme ndaw lettre bu fees ak maanaa nga xam ni Haroun Rachid ba mu defee ak caay-caay jël baytul maalil baytu maalil muslimin di ko jox nee ay sëriñ yu ñëwoon di ko sargal ba ko ba ko defee amirul muminin Sufyaan as-Sawri moom demu ca fekke ko ndax xam ne lépp ak caay-caay la woon mu bind leetar Sufyaan waaye leetaru Sufyaan ba cay ay bi ko ñii jotoon te dégg ko kon mbokk yi jot na sëkk ñu taxaw sénégalais yi yeewu bàyyi nag diw dafa laabiir diw dafa tabe loolu lañ daan wax ci lay Wade ay malet ay enveloppe joxal mako 1 million joxal mako 4 million joxal mako 10 million lolo fi amone ñepp xam nañ ko lolo mom kumu mu ump du dof nga marem dafa dafa tabé marem dafa oyof marem dafa yoyu suñu yon nekku ci suñu xaliss bi daal la soxla ñun am yaakar ni bëss dana ma sa sénégal yalla yabal ñu ko xamni ki dana ko yor ci façon bu bokku tak bi façon ñuy gis ndax daal nguru kep fi ne leneen ludul nguru nak amu fi ay nit ay badolo dajale senu ñak jox la ko nga dem di lepp ci senu tour di def yeneen ak yeneen dajale alal joju au lieu nga jagal ci senu dundu jagal ci sen dunduk njabot nga jël ko diko ko ba paré wëlbatiku di len mosal ñu nan la jërëjëf jaaraama mooy doon wax rek Sénégal tant que wees wuñu foofu ci guddi gu bët setagul la ñu nekk ko defee ñu jàll ci beneen tomb mooy assemblée nationale waxoon naa leen ca ginnaaw ci benn vidéo ne leen pareeguñu bës bu ñuy dem assamble di fal président assemblée yeneen dangeen ngeen ca dégg gis ca lu jommal lu leen jommal waxoon naa leen ko lu yóbbu loxo gémmiñ defe naa li xew démb waxuma la yóbbu yóbbu loxo gémmiñ waaye yóbbu naw fit musuma cee rafet njort te duma ci rafet njort fii ñu toll ci guddi yi image bu ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw ngeen gis ay weteñ yoo xam ne dañoo sam ab bàyyi ma ku ne di wut ay post ku ne di wut ay avantage ak privilège ay nit ñoo xam ne ñi amaluñu réew mi njëriñ mënoon nañoo bàyyi réew mi mu bañ am assemblée nationale ndax lii ngeen jëm wax naa leen ko maa leen digaat loolu du nag xam-xamu baatin du leen xam nit ñee tax assemblée nationale bi fi nekkoon jaru ko woon mënoon nañoo bàyyi président de la république saa yu amee lu am imposé ko ñu ñu doxal ndax moom bu koy bëgg nam ko bëggee noonu la koy amee loi bu mu bëgg noonu lañ koy dugalee loi bu ko neexul boo ko indee ñu sànni ci xaj looloo fi doon am te looloo fii continuer ba ñu dem suñu kanam du ngeen fi gis lu ngeen xam yaakaar naa nag nii sénégalais yi góor góorlu nag am fulla ak fayda taxaw nag yëkkati seeni përëg nag fas yéene dox digganteek ñii di leen muucu ni weteñ di muucoo lamu mu sàmm cumul de fonction yi jeex réew mi ku fi jox ndom kuñ fi jox tank wenn lay doon ñu jox sa morom député ku ko ku maire sa député téye ci té de maire bi lolo wara maire ba jox responsabilité maire ba tek ko ci délégation ku nekk ministre yaa xam da ngay téye ministère bi bàyyi mairie ba wala nga toog ci sa mairie te bàyyi ministère ba loolu wër a nekk maire bu nar a liggéeyalu dëkkam buñ ko joxee ministère mu bañ maire bu nar a liggéey dëkkam buñ ko joxoon ministère du ko jël ministère ndombo tànk la xëy na am nay avantage kon looloo leen ca ba képp koo xam ne kii nag mbokk yi yaakaar naa ne daan ngeen ko dégg man député diw laa dañoo fas yéene nag takk suñu ndigg ba mu dëgër jàjju taxaw nag di déglu nag assemblée nationale ku ne député diw laa abal ñu dem ca xaj koo ngeen fi déggati mu ne député diw la nañu ànd nun dem taxaw foofa ne ko danga fi jóge ndax nag député diw moom amu fi te dootu fi am incha allah am nañu yaakaar ne loolu citoyens yi danañ taxaw kenn dootuñu fonto ak di ñu këll-këllee ñàkk jom li ngeen doon ñoo leen ko def ñoo leen tax ñu ci bare ñoo leen tax a dawal oto bu am clim ñoo leen tax a amas koppar def ko seen poos yi ñoo leen tax tedd kon da ngeen ñu respecté par force il faut que réew mi ngur citoyens yi taxaw doomi réew mi faaw ñu taxaw jonn fas yéene lii dakk ak nu mu mën a dakke nag ak lu mu jar nag parce que yabaate ngeen trop wete leen gën vous ne méritez même pas l'épithète honorable mérité wu leen ko bu ci am fukk lay doon li ñuy daaneele nag mooy prison yi ay gulag gulag nag ku ko xam te jamonoy ruus ju metti ja xeeti prison la yoo xam ni yi wala yaasu billaa boo ca duggee ba génn soo deewul da ngay dof boo duggee ca prison yooyu soo génnee soo deewul dangay dof dangay ngay tàqalikook sa sago danañ la fa teg ay xeeti mbugal xeeti nattu yu jéggi dayoo yoo xam ni doomu aadama àttanu ko nit bu fekkee ne dafa def faute ñu topp ko ba xam ni faute bi moom la dafa war a payer sa dette envers la société dafa war a fay bor bi mu yoral doomu aadama yi rawatina nag ka nga xam ni kii moom la lor wa dal ci kawam alalu jàmbur derub jàmbur deretu jàmbur xàqu jàmbur ci wàllu ci tënk képp ku ko yor war nañoo fexe ba nga delloo ko ko ak noo ko ko mën a delloo loolu moo war waaye nag ñu xool nag fañ lay dugal di la fayloo àq ja est-ce que loola lu humain la est-ce que yell na ci doomu aadama ñu koy def noonu ndax privation de liberté rek déjà punition la nit ki nga ne ko dootoo fi jóge fii ngay dëju loolu déjà punition la buñ ca boolee dootoo am li nga bëgg lépp loola tamit ñu ngi lay yar kon loolu boole kook taxaw temm nga fay àqu ka nga xam ni kii moom nga tooñ loolu ànd naa ci rawatina nag ñi nga xam ni ñoom ay bandits de grand chemin lañ ñëpp xam leen récidiviste ray nit jam nit toroxal nit lu ne def nañ ko te bu ñu tëdduñu benn kaso ñaari yoon ñetti yoon ñooñee bu ñu demee ca biir prison ya fuñ leen dugal baax na ñu leen dugal rek xeeb naa ko njëbur soo nekkee ci mbedd mi di kar nit ñi yori jaasee ki xeeb di jëli fital di jóg guddi àndandoo faat nit ñi jël seen alal di leen toroxal wala nga ñëw di sàcc alalu jàmbur wala ngay wax ba yóbbu alalu jàmbur ci caaxaan kooku yoon dafa war a dal ci sa kaw waaye am na ñoo xam ne ay erreur judiciaire sax am na ci am na ñoo xam ne ñii xëy na la leen fa dugal sax du woon seen jubluwaay ndax léeg-léeg nit ñu dénk ko alal mu def ci njuumte parce que doomu aadama moo bindoo noonu wala mu seq ak nit ci leneen lu dul loolu def ci njuumte loolu dana am parce que nit dafa matadi su boobaa lu mu gàtt gàtt gàtt juge ba ña koy atte tàmbalee ca polise ba ba ni muy accès ci prison bi bu fekkee dañ koy war a daan war nañu xam ndax kii ku ñu war a jàpp la toroxal ko wala wala wala ñu fexe ba prison ba nekk nekkinu woo xam ni wii su fa génnee du gën a nekk sagaru nit mais prison boo xam boo fa dugalee nit su génnee jikko ja yées su génnee feebar su génnee daanaka dundatul loolu du dëgg du yoon cim réew prison yi nañ ko defar nañ ko yiwal doomu aadama du tëdd fu xeeñ saw doomu aadama du tëdd fu amul ngelaw ventilé di ventilé doomu aadama te nag li ngeen di def yéen a ko tayaatoo am na fa ay chambre VIP kon li ngeen def yéen a ko tay yéen a tayaatoo li ngeen di def am na fa ay néeg yoo xam ni yi ku fa dugg da nga naan lii lu mu doon xanaa man damaa nekk ci biir hôtel am na ci prison yi lu tax loolu di mën a nekk kon nag ni ngeen mën a defee noonu defal leen ko citoyen yépp ñu bokk ci benn droit ku yoon di dal sa kaw dal sa kaw ñu def la ci condition yoo xam ne yi dana yell ci jëmmi doomu aadama waaye jàpp nit yóbbu ko ci prison amul clim waxaalewu ma ko amul ventilateur tàngoor wi euh, xas xet gu xasaw ga douche ya bon bon gu jéggi dayoo ba nga xam ni yow daanaka sa àddina day tukki te deewagoo loolu du dëgg du yoon bu ko defee mbokk yi foofu la ñuy yemale kàddu yi ba beneen yoon asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.